gannaaw gi ñu teg si inna naakal kaw kawsara fukki yoon mel ne dañuy julli juróom benn ràkka ràkka bu ci nekk ñu jàng sootu fatiha benn yoon buñ ca noppee ñu teg ci inna a'taynaaka al kawsara fukki yoon ñu dikk ci li nga xam ne mooy njëriñ gi bi wax neen julli gi képp ku ko julli dees na ko jéggal bàkkaaram yépp bala mu jóge fu ko doon defee dees na ko bindal tuyaabay junni ak màkk yu nangu dees na ko bind tiyaabay junniy umra yu nangu ak yool ku saraxe junni dërëm mel na ni ko xam ni daa seeti junniy doomu aadama yoo xam ne dañoo tawat waaye mel na ni koo xam ni daa gunge junniy néew yoo xam ni ay jullit lañ yu leen jëmale seen barab waaye dana mel ni ko xam ne jàng na kaami aw xuraan bu sell te set waaye dana mel ni koo xam ni maanaam dees na ko bindal tiyaabay ju ëpp jàmm yàlla juróom-ñaar fukki at kon nak lo moy li nga xamni ni sëñ bi indi nako ci téere bi ñaan yàlla suñu borom mu dimbal ñu ta dafa ñu ak tawfiq bi jaxi seydi saadaati ali xoli salawaat alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh